am nañ mbégte ànd ak observatoire tey ak kilifa yi nga xamante ne ñoo ko seq pour ñëw mën a waxtaan ak nit ñi ci thème boo xamante ne dafa intéressé le secteur informel. Le euh, secteur informel lu tax ñu wax ko importance bi mu am ci suñu dëkk la ak économie réew mi kon dafa mel ni lu ëpp ci opérateurs yi dem na ba 70 pour cent wala lu ko ëpp ci secteur boobu la ñuy yëngatu donc mënoo développer le pays te waxoo ak ñooñu kon loolu moo tax ñu seet nan la ñuy def pour suqali ñooñ pour suqali leen nag. moy produit yi nga xamantene état def nako yépp base bi moy il faut nga formaliser et pour ce faire chambre de commerce def na ay taxawaay yoo xamante ku fi ñew ci ben waxtu wala ci ben jour mën la créer entreprise. lolu amna solo parce que amu fi won ay djégo la lepp li ci aju muy ay NINEA muy carte import export muy registre de commerce etc. cetera loolu lépp ñun mun nañ ko défar ci té lolu lepp ay services la ñuy mettre à disposition du secteur informel njëriñ bi nga xamantene nak dajé bi am nako moy l'observatoire ak kilifa yi ko séq euh, tàmm nañu chambre de commerce pour gën a lancer pour jéem a sensibiliser nit ñi pour ñu gën a góorgóorlu ci loolu. en tout cas encore une fois les acteurs a ngi fi te ñooñu tamit dinañ gën a sensibiliser seen i membres pour ñu xam ne loolu mooy yoon wi ñu mën a jaar pour mën a accéder ci financement parce que ñun sax dañu am difficulté bu fekkente ne am nañ ay partenaires yu jógee à l'extérieur bëgg a liggéey ak ñoom mënoo liggéey koo xamante ne identifié woo ko te loolu rek nga ko mën a identifié kon loolu moo tax ñu jàpp ne euh, thème bi am na solo nit ñi tamit question yu bëgg a laaj euh, observatoire def na ay pexe yoo xamante ne panélistes yi dina leen ci mën a tontu kon li ci des rek mooy yendoog ñun poser question yi seet daal na ñuy def ba gën a mën a suqali le secteur mais pour mën a bénéficier aussi ci produits yi nga xamante ne état du Sénégal def na produits yooyu mën naa ko citer commande bi nga xamante ne commande nationale bi ndax gis nañu menuisier euh, ébéniste yi doon nañu am problème pour ces produits du ñu jël ñu jël ko léegi nag talaanga boobu état indi nako mais pour que mën ci bénéficier il faut nécessairement nga formaliser wu mën a ñëw postuler demander nga mën soxali suqaliku solo jàpp nañu ne euh, pour créer emploi dara gënu ci valable secteur bi ndax japp nañu né ña nga xamanté ñu fa nek kenn nit ko fa gis mun na employé lu ma 3 4 5 ba 10 nit. te loolu lu am solo la pour nga suqali secteur mel